waaw mbokk yi fii ñu nekk tey moo di kër Serigne Modou Diop moom Serigne Massamba Diop bu nekk kër Serigne Modou Diop moom Serigne Massamba Diop nag mu mel ni këram yi yaatu na ci biir réew mi waaye këram gi mooy këram gi nga xam si ni moo nekk fii ci Daara Diop bu Serigne Modou Diop moom ma sàmba Diop Sam waaye nag bu nee Daara Diop xel yi dana dem ci ki nga xam si ni mooy Seexul Xaddim mooy Xaadim Rasul yàlla na ko sunu borom fayal di ñaanal xalifaam bii nga xam si ni moo fi ne muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou suñu borom may ko fanu gudd ànd ak wér di ko ñaanal Cheikh Abdourahim Diop mi nga xam ne si ni mooy xalifab Serigne Massamba Diop Sam tey nag bu nee Daaru Diop ñëw fi ngir benn bis bis boobu mooy ban bis mooy bis bi nga xam si ni mooy sant Serigne Massamba Diop Sam waaye nag ñan di ko amal muy daayira sant Serigne Massamba Diop Sam ci njiit li Serigne Cheikh lay ñu am ci ndigal tuddee ko ki nga xam ne si ni mooy juróomeelu xalifa bu ma Massamba Diop Sam muy Serigne Abdou Samad Diop doon ci defal ab hommage di ko ci ñaanal di di wàcc ci ay alxuraan yoo xam ne si ni sëriñ Abdourahman Mbacke moom daaru Muxti jàng fi ñeenti téeméeri kaamil sëriñ Sidi Diop jiite ko ak sëriñ Mamour lay ak sëriñ Mbacke Diop. tey nag ñoo ngi bëgg a jublu ci liggéey bi bu soobee suñu borom dina ànd ak yéen ak waa délégation Argentine TV bépp dem ci ñi nga xam si ni ñooy kër kilifa yi waxtaan ak ñoom ñu ñaaxaat ñu soññuñu ñu daal ñuy ñaanal ci liggéey bi ñuy def muy liggéey Sëriñ Massamba Diop Sam ñu àndandoo dund màggal gi incha allahu rabbi ak télé bii nga xam si mooy télé bi xew ci jamono muy télé bi yi di Touba Argentine TV incha allahu rabbi aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa kon mbokk yi yéen yi nga xam ni yéen a ngi ànd ak ñun ci màggal gi ci jamono ji ñu nekk fii ci kër gu mag gi nga xam ni mooy kër sëriñ Muudu Jóob moom sëriñ ma sàmba Jóob Saam kër sëriñ Muudu Jóob nag kenn dootu ko présenté fii ci Daaru Jóob ndax mooy ki nga xam ni moo sancoon pàkk bi ci ndigalul way juróom wa sëriñ Masamba Jóob Saam waaye ci ndigalul sangam bu tedd ba muy sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul waaye nag tombe woon ak jamono ji nga xam ne mooy jamonoy Serigne Moudou Moustapha ñu koy ñaanal sunu borom yokk ay leeram bu baax ci taaf ci barkeem kon ñu teewli ñi nga xam ne sii ni ñoo nekkoon ci wàllum alxuraan mi ku ci mel ni sëriñ Mbacke Diop sëriñ Mbacke Diop nag buñ ko tuddee fii ci Daaru Diop ñëpp dinañ ko mën a jàpp ndax jëwriñ la fi di fi taxaw alxuraan ji bu màggal gi ñëwee ak mu màggal gi ñëwut ci ay jamono yoo xam ne sii ni yu man di doon la fii ci dëkk bi kon dañ koy jox rek mu sànni ci ay kàddu wax li nga xam si ni mooy limu alxuraan bi ak ni nga xam noonu ko doon taxawoo moo sama waa ji nga xam si ni mooy maam Mor lay kon sëñ bi bismillah aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asraf almursalin sayiduna wa maulana muhammad wa ala wa ashaabihi wa qadimihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ Tuubaa si Ahmadu Bamba Xaadimu di sant mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak ñi nga xam ñoo doon jàpp ci alxuraan ji ba nu xëyee ci suba ba tey ñu ngi fi nekkoon ci kaamil yi boobu ba tey mboolem mbokki taalibe yi ñu ko àndaloon ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen jaajëfal. di ñaan tamit suñu borom liñ ci jot liñ fi jot a jàng ci ay kaamil suñu borom nangu ko ca ful ko ca tasaare ci mboolem réew mi ak bitim réew ak fenn foofu ab jullit nekk rek suñu borom defar ko tawféex foofee mu nekk di sant bu baax a baax ci jégalu bu baax xam ni daanaka kàddu yi xam naa du gudd lool sax ndax dafa tollook tolloog alxuraan moom day lu màgg loo xam ne ci bis yëpp. bis bu ñuy taxaw rek alquran daanaka moo ci gën a kawe kawe goo xam ne nii màgg na màggaay goo xam ne daal lépp lu ñu def rek war na koo fonkaat bu baax a baax gën koo taxaw taxaw bu baax a baax a baax jox ko Pastef xam ni mooy li ci ëppal solo kilifa yi nga xam ne moom lañ sant muy sëñ euh, muy sëñ mu Samba Diop Sam ak ak njabootam kon loolu kan ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel ci di ci góorgóorlu woon baax di jéglu bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon ñoo ngi koy sant bu baax sëriñ Mbàkke di rafetlu ni nga xam ne noonu la taxawoon njàngum alxuraan mi waaye nag ñoo ngi lay ñaanal ci barke samaam sëriñ Masamba Diop Sam lépp loo xam si ni mbootum alxuraan la mu tuuru ci sa jëmm ji barke sëriñ Touba kon dañuy jox sëriñ moor lay mu leeral limub kaamil bi nga xam ne jàngoon nañ ko fi ci suba ak bi nga xam ne si tàmbaleegun yëf yi lu jiitu bis bi ak lépp incha allahu rabbi mu leeral ñu ko subhaanaka laa xilma lana illaa ma xalamtana innaka antal alimul hakim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Xaadimu Rasuul di ñaanal baax sëñ Mahamadul Muntaxa mu yàgg fi lool am wér bi leen bëgg liggéeyal si loxo di mu yëgale ko te di ko ñaanal baax xalifa sëñ Masamba Jóob Saam si Abdurahim suñu borom defal ko tawfeex ak nu gudd ba leen bëgg liggéey ma Masamba mu yëgal a njabootu sëñ Masamba Jóob Saam di saare mbokk yi nga xam ni ñoo fi teew tey ci bis bi nga xam ni mooy bis sëñ ma Massamba Diop Sam te sëñ Massamba Diop Sam saa bu ko tuddee kenn ku ne xam ni mooy jàmbaar ji nga xam ni moo bàyyi ko woon paatar fekk woon moo bàyyi koon Sam fekkoon sëñ Tuubaa ngi ko liggéeyal ba am ngërëmu Seexul Xadim kon ñu koy sant sant nag ñu koy def mooy ñi nga xam ni sëñ ma Massamba da leen defal dara ñu yëg ko delloo ko di ko sant kon li nga xam ni moom la ñu yàlla dogalan ñu féetewoo kon mu jëm ci wàllu alxuraan ji ci ñu àndan ko mbokk yu tedd ku mel ni sëriñ Saam Jóob mais moom sëriñ Sohaybu ak sëriñ Cheikh Maam Busa ak sëriñ ma Yaasin Fall mii ak sëriñ Abdourahim sëriñ Xaadim Jóob mii ak sëriñ Saaliwu Jóob moom sëriñ Xaadim ak sëriñ Basi Jóob ak sëriñ Basiiru Mbàkke mii bàyyi ko woon Daaru Muxti ngir fekk ci jotaay bi ci alxuraan biñ su xëyee ba léegi ak mbokk yi nga xam ni njabootu sëriñ Masamba ju Sam nga xam ni ñoo yor ay daara lim bi nga xam ne jàng nañ ko mi ngi toll ci juróomi téeméeri kaamil ak ñaar fukk kaamil ak juróom-benn di sant bu baax jàmbaar ju baax si Abdourahmane Bakke moom mi nga xam ne jàng na ci kaamil yi ñeenti téeméeri kaamil kon di ko ñaanal bu baax ak mboolem ñi nga xam ne ñoo seqan liggéey bi ñaan ci Bakke borom pàkk ba tedd bi nga xam ni pàkk bu barkeelu la nii bi nga xam ne ci la nekk mu néegu barkeelu nii bi nga xam ni aju ma jot den fi jàngal si mur ju ma sàmba ab kaamil di ñaan lépp rek sëriñ bi nangu ko defal ñu tawfeex ji def ko addiya sëriñ Masamba Sam ak mboolem njabootu sëriñ Masamba Sam gépp ak jàmbaar ji nga xam ni kenn la ci ak njabootam ñu tuddewoon ko bis bi mooy sëriñ Abdou Samad di ñaan suñu borom jotale ko ci yool bi ak mboolem julli yëpp di jéggalu ñëpp di bàyyi ñëpp di ñaan borom bi tabaaraka taala nangu sunu ñaan barke xadim jërëjëf sëriñ Mor kàddu yu leer na ci ànd ak Pastef mu mel ni dañ ciy ñaanalaale ki nga xam ne si ni mooy sëriñ Abdourahmane sunu borom guddal fanam bu wér ci barke sëriñ bark barke ma samba Diop Sam ndax bis bi heure buñ ko taxawalee dina ci taxaw kem kàttanam ci wàllum alxuraan di ko jàng ak di ko jàngalu ngir di ko ñaanale sëriñ samba Diop Sam ginnaaw loolu kon dañuy wéyal suñu kàddu rek jox ko Cheikh Modou Diop moo xaan si ne moom mooy turandoo sëñ sëñ Modou Diop moom sëñ samba Diop Sam moom itam mu ñaanal mbooloo mi rek sànni ci ay témoignage am ñu soo continuer liggéey bi kon incha allahu rabbi sëñ Modou bismillah ñu leen di siyaare di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi man nag euh, euh, sama wàll sama sama wax moom maa ngi ko jëmale ci rek euh, nu mu jëmee kanam waaw nu mu jëmee kanam ndax wax dëgg yàlla sooxe na ca waru woon a sooxe sooxe gi mooy képp ku ci bokk ñëw ci bés bi war ngaa mën a teew ci fi ñuy jànge kaamil alxuraan yi ndax ñëpp ko bokk non ni ñu ko waxee wala ni ko sëñ Mbacke waxee rek ndax alxuraan moom mooy lépp ndax ni ko Cheikh Abdoulaye Mbacke dañ laa daan waxtaane waxee ni Cheikhul Khadim musi si ko jox lenn mu nangu ko ci loxoom lu dul kaamilu alxuraan lu ko waaye mos a jox tegal foofu la lay wax kon ku yàlla dimbali ba nga jàpp ci alxuraan eh, yaa ngi jàpp ci ndigalu sëñ bi maanaam eh, eh, suuf liñ ci war a def mooy ni ma ko waxtaane woon léegi mooy ni ko sëñ Mountakha waxee eh, yal na ko yàlla yàggal fii ci xilaafa gi ca dëgëral ko ba lépp lim yéene ak képp ci ànd yàlla defal ko ko mooy eh, dafa bëggul lenn laa suuf nee na bu dara laa suuf na lépp yëkkatiku kenn ku ne fa nga toll na jàpp foofa ba lépp lépp jëm kaw di yëkkatiku man damaa gis ni kon ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo woo nit ñi ba nit ñi ñëw ci bis bi fu ñuy jàngee alxuraan ñi fi nekk ñëpp tam ay sët lañ yoo xamante ni benn muy sëtu Maam Mbacke Diarra ca moom kooku moo nekkal loxol ndejoor sëñ ma sàmba Diop ak ñeneen ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp feq ko kon nun nañ fexe ba ak yi des ñun suñu waajur yëpp ñun ñëpp ay bi lañ waaye nañ fexe ba ni mu doon doxe mu gën a dox waaw sant gi danañ ko def sëñ Abdourahmane ndax bu fekkee maam Thierno Birahim Cheikh Moudou Massamba Diop mi boroom dëkk bi Cheikhul Khadim ba mu koy sancal fii maam Thierno Birahim la ko booleel ni kon na ko sancal fii mu sanc fi nekk fi kon bis bi defe naa ni waroon naa mel ni bisub Daaru Musti nga xam ni waa dëkk bépp dañuy dem di di màggali Daaru Musti waaye tuuti ju doy lu baree bari la comme ku mel ni sëñ Abdourahmane yëggum leen yëg ak yëg bis bi yëggum ko yëg ba def ci njàng ñeenti téeméeri kooku taxawal na fi waa Daaru Musti yëpp taxawal la fi ñëpp ñu koy sant di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi loolu te wér li may wax daal mooy ñun ñi ko moom ku ñëw na xam ne ñoo ko moom nañ ci jàpp ku wa lu waay man rek côté ba mu féete rek na fexe ba mu dox mu gën a dox ndax woo nit ñi ba ñëw nga won leen laneen lu dul dëgg moo fi bëgg am ci ci ci ci dafa bari léegi waaw dafa bari léegi lool yëdduma kenn nag damaa xam ni loolu mooy li war a am ñun ñëpp dañ cee war a def suñu jite képp ku ñëw ci dëkk bi bis dëkk kër gii ne bii ñu toog war nga fee ñëw siyaare war na laa jaral ñëw siyaare dem ba ñëw ci siyaare ñëw ci màggal ga ba dellu dellu fa nga nekkaan ca jaaroo ci néeg bi ca dama laa xamal ne néeg yi ki fi nekkoon muy sëñ Mourou Massamba Diop daa fi yendu lu bari ci yoonu murit mu liggéey ko fii la ko liggéeyee donte aman nay ndaw ku mel ni Baye Serigne Diop sëñ Fallou Diop sëñ Mourou Moustapha Maay sëñ Mbacke Diarra sëñ Basirou jóob Dar côté gu nekk ñooñu dañoo nekkaan ay jëwriñam defa dem waaye moom li mu liggéey la fii la ko liggéey lu fa waaye Moussa indi rek na ko yóbbu ba Seex Mouhamadul Fadal seereel ko lim ko seeral liggéeyub sëñ Touba bi sëñ Mourou Massamba Diop ci jëkk a joxe fukki million ma maa ko nangu sama loxo bu tedd bi fii la ko liggéey woon kon ñun fii dañ ko war a dundal màggal ko fexe ba nu dëkk yëpp mel mu mel ni ci yomb na nag waaw loolu daal maa ngi koy ñaan ñëpp waaye rawatina nag njàngum alxuraan njàngum alxuraan mii ak xasida sax lañu war a wax ndax ki fi nekk Seexul Xadim njàngum alxuraan ak xasida wax nañ fi wut ay bis si jàng alxuraan ak xasida ca buñ ca doole lenn ndax fii tuubaa soriwut buñ nan tey bi sàngam nañ fa dem daaru daaru Jóob jàng fa alxuraan mu jàng fa xasida lu yomb lay doon ci ñun ñu bañ koo réyal bañ koo def ak màggal ba ca daaru Saam gee waaw nañ ko fexe rek jàpp ci bu bëri allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa xayra xadim yi jërëjëf sëñ Cheikh Samba waaw euh, loolu la wax nga lu lu am solo lu mat a wax mooy sëñ sàmba jóob Sam fam fekki wan Cheikh Ahmadul Xadim ca Patar ne ko sëñ bi tuddee léegi waaw ndax euh, fépp képp ki koo xam ne bokk nga ci yoonu waaw képp kuy bokk ci yoonu murit xam ci dara am na ci xam-xam yooyu war nga koo xam loolu mooy nga wax mooy mooy ba mu demee ñëw fekki ko fekki ko ànd ak maam Mor Anta Sali ndax dañu wax ni maam Mor Anta Sali bi mu jógee Ñoora ba Poroxaan ànd ak euh, Lat Joor bi Lat Joor ñëwee kër Amadou Yàlla telam maam Mor Anta Sali xamal ko ni ko moom du mën a jaxasoo ak i ak ak i buur ndax ñi mu yor moo tax mu nekkan paataar kii nekk am ba mu fa nekkee ay weer pour gàttal la ni am na sama taalibe bu nekk fii ci Sàmm dama ko bëgg a dem seeti muy sëñ Amadou Batoor Sarr moo fa nekkan boobu daaru daaru amagu fa bi mu ñëwee nag fekk na fa sëñ sàmba Diop mu muy mu yore daara ja ci niñ ko waxee ke ma ko nettali man ndax comme nettali dafa bari nee na bi nga xamante ma sàmba ñëw na sëñ Touba ñëw na ànd ak euh, sa Maam Mor Anta ñëw na ànd ak si Ahmadul Xadim ca ngan nga si Amadou Mbacke bi mu gisee sëñ ma sàmba Diop daf ko teg ay bëtam rek teggeetu ko sëñ Massamba Diop fu mu geesu rek gis mu teg koy bëtam ba ni maam ma sëñ Amadou Batoor wootee ni na dong yi ñëw nuyu sama gan bi ñëwee di nuyoo mu nam ko defan rek laa ko def ba ni mu delloo ca mbaar ma ca boobu moo yoroon mbaar ma moo yoroon njàngal ma la ci ab solo sëñ Massamba Diop sama ko yoroon ba mu bi mu bi mu demee fa la ko Seexul mu fekk Ahmadou Mbacke ci yooyu jamono bi mu ñëwee da ko joxoñ ne ko ana ndongal yow noo tudd mu ne ko man de Massamba Diop laa tudd mu mu ne ko ne sëñ Makhtar Diop mais ma woon dafa am lu ma ci raw waaye daf ko ne Massamba day mooy nangam ci alxuraan ko ni foofu nga yor sa jukki boobu nga yor foofu toll ci njàng mu ne ko ci ndey alxuraan umul xuraan mun ne ko umul xuraan moom mu luy ndeyam sëñ Massamba ni ko ah nopp day daloon nu ko mën a waxee ci waxu waxu kajoor kajoor tool teel a mos dugg sama nopp alxuraan ndey alxuraan luy ndeyam mu ne ko ndey alxuraan moom bisimilahi rahmaani rahim mooy mooy ndeyam daal di wëriñ di dem mu ne ko ah, waaw ku baax mu geesu ko mu ne ko waaw yow na nga tudd yaa ngi ma laa sama tur ba pare noo tudd mu ne ko man day jamono yi ma toll Ahmadou Mbacké lañ may woo ni ko xamee woon dadaa beru ji rek foofu la ko sëñ Massamba fekk ñoom amatuñ soxla ci ngan gi bi yàlla dogalee ngan nga jeex ba Mamour Anta Sali dellu moom ca la toog tranquille mu ni waaye juróom bi ko yoroon ne ko man day dama bëgg a seeti Ahmadou Mbacké moo nga xamante ni moom dafa ànd na nag Mamour Anta Sali ca ngaan ga mu ni ko loo fi wuti yow li nga jàng ak fi nga toll sam jàng naka ngay deme di seeti faneen koy jàng mu ni ko daal li ma la mën a xamal yóbbu na sama xol yóbbaaleen sama xol ah bàyyam boobu ni ko kon day ku yóbbu sa xol moom fii da la des doo fa daal kon demal nga fekk waaye buñ gisul lu boo fa yàggee gisoo lu la doy nanga nga ñëw boo bu ñu la gis yàgg dañ la seet si ba mu demee fa nga ko jëkk a fekk wax nañ ni ci ki ma ko nettali man dafa wax ni dafa fekk waxtu yoor yoor la fa àgg ba mu àgg ci dëkk bi day laajte damay laajte ku ñëw Ahmadou Mbacké jigéen ñëwoon ca teen ba dañ ko doon reetaan ni ko yore xuba foo jóge waaye xanaa amoo kilifa kooku nga xam ne boolewut boppam ci kenn moom néegam ma ngi ko teg ca ginnaaw mun loolu lépp ñoruma damaa bëgg ngeen xamal ma fan la ne am jigéen bu baax romb ko ni ko ko baax ndongale demal leen nuru néegu pël ci ginnaaw kër ga boo demee boo fa bokk fu fekku danga fa fekk dara ci ci ci moom ca la demee fekku fa kenn ñëpp dem tool ci niñ ko mën a waxee fekk na ñëpp dem tool sëñ bi ànd naag dong ngay dem tool lim ko jëkk liggéeyal ci alxuraan loolu rek lu mat a bàyyi xel la ci la jëlee dem ca fi ñuy fi ñu wér allo yi di xool allo yi lim jëkk liggéeyal si yow xadim ci gisagu ko fekk ko foofa mooy alxuraan kon ñun nañ jàpp ci alxuraan ji dañ ci gën a góorgóorlu wax nañ ni moom moo jël alluwa yi nit ñi gone yi di bind am na ñoom xam na ni mokkal nañ naka la mën a xamee ne mokkal nañ kon xam nga ñu ànd nag Seexul Xaadim ñëpp du ñu woon niti kese am na ñoo di leen bindalu am na ñoo bindalu am na ñoo xam ne bindal na leen ba seen alluwa fees xale yi ku wàcc rek da ngay fëgg sa alluwa daw boo dikkee fekk ñu bind ko nga dikk wan ko ko baax mu ne ana ko def jëf ji ñu ne ko ah xamuñ ko ba am na benn ku tëdd ca garab penc ga de mu dem leen wool ma ko bañ ko wool mu ñëw muy sëñ ma Samba Diop Samb loolu rek doy na doy na sax eh, laneen waaye li ci mat a dolli mooy li nga dan laaj léegi mooy ba mu toogee ba di waxtaan ak moom ba bëccëg ñuy waxtaan lim ko jëkk defal xool na ci néeg bi gisut ab lal téere yi sëñ bi da ko def jal rek daf lal fa a teg fa téere yi mu ni ko ndax doo ma may ndigal ma wutal ab lal mu ni ko may naa la ko mu dem ci al dugg àll bi wutal ko lal loolu bokk na ci li lim ko jëkk dim jëkk a defal Seexul Xadim takkum néeg sax am nañu ko wax ni moo ko moo ko defal defal na ko waaye li ci li ci amaa solo mooy ñetti fan yi ñu toog di waxtaan ci xam-xam ak waxtaan ci biir néeg bi jëwrin ji ci bopp mu xajootul loolu ba ñetti fan yi jeexee dafa wax ni dafa reer rek daal di fëgg weñ gi reer bi ku ci reer tey bu subaan nga gàddu sab gopp dem ci tool yi ku baax ki sëñ si Ahmadou Bamba ni ko ah sàmba de wax jooju xanaa ñoo ko moom sëñ Massamba ni ko na ci teey ndax day bu fekkee gan gee muy wax gan gi mën naa dem ba jël place am xam ni kooku kon moom fës na yéene toog liggéey te it wax nañ ni kero ba mu toogee ni ko dama laa seet si da ko ni mankat kat euh, surga laa surga du amaat surga nañ dem ci Mamour Anta Sali miy borom jaare ji mu boole la ak moom bañ demee mu ne ko mankat yow daal yaa ma tax a jóg wax nañ ni Seexul Xadim nee na fekk Seex Masamba Jóob fekkan foofe ci paatar nee na mi ngi melan ni gumba goo xam ne daa yoru yat di làmbutu yoon ñun yoor koy ëbbët fa ko sëñ Massamba Diop kon boobu garaat la boo xamante ni lu mat a bàyyi xel la ba ko yóbbu ci Mamour Addi Sali da kon yaa ma tax a jóg ci ëllëg sa ba dong ba ba kii bi jëwriñ ji waxee loolu ki ma ko nettali nee na sëñ sàmba sëñ bu mag bi ba mu génnee fajar la takk loxo yi ba mel ni kuy dem xare fa ab goppam sëpp ci digg ëtt bi nga xam ni gondonge dañu ko war di ko reetaan ni tey da tey de tool yi nar naa neex tey de tool yi nar naa mel nii sëñ Massamba Diop ànd ak moom ñoo jiitu ñoo jëkk ñu tool yi di xaar di xaar kii war a sase fekk konfaloo nañ ñi buñ demee nañ def xam na ni seen jom jee ñu yóbbaale ca tool yi sas bu waa jëkkëral ñoom ñoo koy jëkkëral def ñaar tobi sas yi gën a metti yu gën a rëy bañ dalee rek sëñ sëñ bi mag bi daa dal wax nañ ni kaamil bi daawul di gën loxoom da ko daa bokk yor loxo càmmoñ bi di ci soos bu àgg fa tooba ma dëppaat ba ko sëñ tam ma sàmba taxawee di ko xool ma def ko ñaari yoon ñetti yoon mu ñëw nangu gob ba ni ko ko baax ki demal ca garab gee nga jàng sa kaamil boobu danaa bay sa sas wi bay samaw sas bis boobu metti na ci ñoom lool ki ma ko nettali wax na ni bis boobu dañ fa yenn ñun ñi wàcc ñi wàcc leen fa bañ fa wàccee ñi wàcc leen fa biñ ñëwee fekk nañ ñu añ ba pare bi ku baax ki laajte ana suñu añ dañ ko ne añ bi moom wenn niir la bu tawee jeex na ku mu fi fekku doo bàyyi nga xam ne añoo nga seet la neen ca la seexul xadim jëkk a waxee loo xam ne nit ñu bari bàyyi nañ ko xel mu ni sañ ma sàmba suñu ñàkk añ gi tey nanga ko muñ maa ngi lay xamal ni fa añ jafe sama loxo sama téng lii lu ñuy joxe man la man lañ ko séddale ca balaa maa sédd kenn danaa la sédd yaag sa njaboot ba mu jeex bisub ñaareel ba ba ñu demee sëñ bi daa ànd ak moom def la ko ku ma sàmb ji waxan daal dem lalub deram ca garab togga di jàng kadan toob bi daa toob bi to sas woo xamante ni musta man a am lu kenn loo xam ne yéene na ko yéene na leen ñu la leen dalan démb dal leen ba sëñ ma sàmba taxawee moom daa daa dëpp néegu booba loolu xewut dañuy soos moom daa taxaw dëpp néegu ba mu dëppinee ko benn ba wër la ku baax ki jóge ca garab ba fa mu dañ jànge dikk nangu gopp bi ruur jox ko ñoom ñi nga ci daa tool bi yëpp dañoo mujj kenn ku ne fab sa xor croisé baraa di xool ni muy bay ndax naan jinn la ak ndax lan moo koy bayloo bay nañ bay sëñ Massamba Diop bay na ñaari sas yëpp ba ci ànd ak sëñ mag bi ñibbi nga xam ne bu ñu daan fayantoo dañuy añ añ ba doo doo ñibb waaye dañ leen xaar ba ñëw bañ séddale añ ba ay fan lañ te teg jëwriñ ja dem ni sëñ moom Mor Anta Sali ni ko man day gan gee damaa bëgg li nga ma joxal nga jox ko ko waaw loolu bokk na ci xar baax yi loolu nag euh, lu mat a bàyyi xel la waaw moo tax ñépp ci ñi nga xam ne xam nañ ko ci waa kër Axlu Mbàkke foo waxee jóob jóob bi sëñ ma sàmba jóob danañ la joxaat loxo sëñ saaliwu nit jox na ko loxo ba tàyyi jox ko addiye mu tàn rotal ko fi suuf nga ne ko man dey euh, taal bi sëñ ma sàmba jóob saam laa mu jeexaat xaalis booba def ko ci poosam waaw kon loolu beneen affaire la waaye loole ba nëgën itam waaw waaw xam nga loolu itam li nga xam ne mooy wàllu wàllu doxin wi itam wax nañ ñu loo xamante ni sëñ Mourou Moustapha sas yim daa laaj di ko ñu di ko joxe jëm daa sëñ Mourou Massamba aman na kum daa yónni ku ni sëñ Souleymane Diop ak sëñ Fallou Diop ak sëñ Mourou ñoo ñëpp ku ci ne da la daa yónni ci sëñ Mourou Moustapha waaw man eh, sëñ Modou Moustapha Mayaay moo jur sama yaay bi sëñ Fallou wàcceeb liggéey bi sëñ astaghfirullah alasim bi sëñ Modou Moustapha nekkee xalifa bi mu fi jógee fekk na booba sëñ Modou Massamba moom ak i rakkam yëpp ñu nga ca kër sëñ Fallou waaye am na addiya joo xamante ni weesan maanaam lu xañ na toolu ba boo xam ne sëñ Modou Massamba joxoon na ko kooku nga xam ne mooy sëñ Modou Moustapha ñi ko yóbbu ko ba ko yóbboo ñoom bi mu ñu séenee muy ñëw dañ ko nii ah ñenn ñi am nañ mbégte ci yow ndax yow de jàpp xam nañ foo man di nekk yaa ngi ñëw mu ne man dey fa sama mag ju baax ja nekk moo ma yónni de fa ma sama mag ju baax ja nekk falaa laa nekk ñoom loolu lañ doon doxee loolu leen mën naa bàyyi xel sëñ Modou Massamba ñi dañ ay rakkam yëpp kenn ku ci ne moo la moo la sancan fii wala sancan la jox la kër jox lay donga jox la aw fas jox la liggéeyukaay noonu la toppatoo woon ay ay rakk ay ay rakkam yi nga xam ni moom la bokk sëñ Masamba Diop Samb waaye sëñ Fallou dafa am lu yéeme lu ci bokk wax nañ ni sëñ ma Masamba Diop Samb moom li sëñ Touba ci sëñ Fallou wax nañ ni dafa am sëñ Fallou dafa am bis mu ñëw jóge ca daara ja ñëw bëgg gis ku baax ki mënu koo gis ñi yor bunt yi na koo ñu ko nanguñu koo tëj ni ko sëñ bi daa fatu bi mu delluwaatee rek ci ngoo ci guddi ci tàkkusaan gi la sëñ bu mag bi ubbi bi mu ubbee waxtaan daal laaj ndax Fallou dafay ñëwan ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gàllankooroon ba duggut ñooñ am nañ kersa waxuñu ko dara sëñ ma sàmba Diop saam ni ko ah man de bu ma jiwmu sama njortu jiwum loowu ma gisan naa ko fi fan yii mu laaj lay sababu mu ñëw fi bëgg maa gis gisuñu ko sëñ ma Samba Diop dellu ni ko damaa jàpp ni ni nga ko def day cofeel nga am ci moom ak ni ko def daa neexul ñi nga jox sa sa caabi mu daal di woolu sëñ ma Samba Diop sëñ Fallou bañ ko andee wax nañu sabab boobu ci la ko booleek moom. ah bi mu waxee laaj di ni lu mu ko war a bañee fallu de lu ñu ko war a bañee wala lu ñu war a def noonu daal jaaxal na ko mu ne ko damaa jàpp ni noonu nga ko def. moo mu xamal ni leen leen man day loolu ma def ci moom kon danaa ci danaa ci dolliwaat dara ñenn ñi da ko ni danaa foofu sama jëmm dugal ci ci moom bu ci xajut ma xaj xajal ko jox xaj xajal joojee wax nañu ni sëñ ma Samba Diop ko indi sëñ fol kon boo gisee ñenn ñi fonk njabootu sëñ ma Samba Diop Samb. ku sant Ndiobène walla ku mel ni sa sa waaja di ànd ak ku ku bokk ci ku mel ñeneen loolu la ci jublu waaw ba mel na ni it ñu mag ñi daanañ ko dund mel na ni mag ñi daanañ ko dund kër Sëñ Abdou boo fa mosaa dem fekk fa waa Ndiobène mu de am lu leen di def loo ba ni mu fi jógee kay kii di rakku sëñ Basiiru mi ngi ma xalifa sëñ ma Masamba Diop moom it noonu la ko sëñ si di tegoon fi wetam sëñ Abdou Khadir ki mu ko tuddee mu sëñ Abdou Khadir foofu wetam la ko daa teg daa daa joxe ay ci moom sax naa dana mel ni sama Abdou Khadir biñ dee net wax ku baax ba ci sëñ Mourtala ni mu defoon sëñ Seexuna ak ñeneen ak ñeneen loolu ñoom daanañ ko def waaye li ci gën a yéeme mooy li si sëñ Saali waxan ku mel ni sëñ Mbàkke Sa Jóob radiyallaahu anhu wax nañ ni dadaa ànd moom bu ñu sancee néegi see Xelkom bi day ànd ak moom bu duggee ba ci bunt bi mu ni ko dugal mu ni ko ah man de sëñ bi ni may def loolu daal jaaxal na ma lool ndax di sama kilifa di sama yaakaar di sama lépp te bu ñuy dugg ci néeg bu ñuy sanc nga ne dugal nee na sëñ sëñ sëñ Saliou xamal ko ni ko yéen bu Mbàkke amoon am tuur yéenay am tuuram mooy tax mu mooy tuur yéenay tuuru Mbàkke kon njóobeenu sëñ Masamba Jóob bu Mbàkke amoon am tuur kon yéenay seenum tuur waaw kon loolu xam nga mbir la yoo xamante ni ñeneen ñi ñu ngi koy dund di di ci xañ ne xamuñu ci woon loolu kon jërëjëf sëñ Cheikh Samb waaw jërëjëf jërëjëf ala waaw. waaw li li daan wax léegi ci kànkang ji ñu àndoon sëñ Serif Fantamadi bi ñu cee dem ñoo moom mi la ñu àndal ak sëñ sërifum sëñ fàllu sëñ sërifum sëñ fàllu moomu sëñ Mouhamadoul Bassi sëñ Mouhamadoul Fadal mi ngi ko tuddee euh, sërif fantama di mala nekk kànkàn ca Guinée nettali nañ fa nettali yoo xamante ni ca laa xamee ni sëñ Massamba Diop laneen la wan ndax wax nañu ni sëñ sërif fantama di 1926 la sëñ Massamba Diop wax làqu bi sëñ Massamba Diop làqoo am na xibaar bu daj ci àdduna xaj na boobu téléphone melul nii mais am na xibaar bu daj dañu ni ku baax gi génn na àdduna waaye Serif Fantama di ba mu ko déggee da leen di loolu amul ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, tàggeeguma ko xam na ni kaneen la nag kaneen kookee nag loolu mooy kooka moo doon sëñ Massamba Diop Samb sëñ Massamba Diop 1926 la wàccub liggéey sëñ bu mag bi wàccub liggéey 1927 wax nañ ni bi sëñ bu mag bi woo maam Massamba Diop Samb ak maam Thierno Birahim da leen a wax ni leen sunu ñetti ruu yi de suñ boroom soxla na ci genn wax nañ ni boobu maam na moo la gën a féete ndaw ah sëñ ma Samba Diop Sam ni ko xam naa de laaju la sama gas laaju la gu Thierno mu ne ko ndax am sama roog sama roog yi la ma laaj dama koy bañ a nett leen neneen waaye dañu wax ni Jibril alayhi salaam la woon. mu ni ko maam sëñ Massamba Diop sax ni ko yow mi am sañ-sañu mu ñëw di la tàggu nag ci loolu bu ñëwaatee di jël sa gas jox ko sama gas ci yow nga toog fii ca la leen ku baax ki xamal leen ni ñun ñett ñii sax de niñ fi rawaate woon ni lañ fi rawaate bu ñu dellu kon ma Massamba Diop daa mel ni moo ko fi jiitoo at waaye 1926 jooju loolu xewoon na 1927 moom la fi Seexul Xadim jóge waaye bañ waxee loolu kankan kii nga xamante ni moom la sëñ Fallou tuddee sëriñ Fanta Marie kooku kilifa la woon gu yéeme yéeme yéeme yéeme ku nangu la ne sëñ Seexul Xadim waaw ndax am na lu xew loo xamante ni wax nañ ni liggéeyu jumaa ji bi mu taxawee liggéeyu jumaa ji bi mu taxawee tubaab bi daa ñëw ni sañ Fallou ameel nga ma téeméeri junni bi sàngam boo ma fayu danaa la danaa la convoqué sëñ Fallou woo mbook njaboot gépp ni leen tubaab bi kat nee na ma bu bu ngeen ma buñ ba bi sàngam danaa leen convoqué leen nag ku ne nag na ceex def sa xalaat wala nga wuti luñ ko def ba balaa bis boobu ñëw ba bis ba jigee la sëri Fantama di yonni ab taalibeem téeméeri junni wax nañ ni téeméeri junni fanweer la ko yónni ne ko téeméeri junni bi ne ko na ma ko defal ci jumaa ji téeméer fanweer junni na ko def ci njaboot gi waaye lu ko jiitu ba ñopp waxee seen xalaat sëñ Fallou dani man bàyyi naa tubaab bi ak borom jumaa ji comme borom jumaa ji mi ngi ñu dégg borom borom moom moom tabax bi moom bàyyi naa ko moom kon xanaa kon kooku kilifa la goo xam ni xaman na lu bare bari ko ko waaye nag moo waxan wax jooju kon jërë ngeen jëf kon waxtu wi gudd na waaw jërëjëf jërëjëf salaatu ala nabi jërëjëf sëñ Modou Diop ñoo ngi ñaan suñu borom guddal safan bu baax a baax waxtaan wi leer na ci ànd naag Pastef ci nag wax dëgg yàlla lépp loo xam ne doon nañ ko ci séentu ci ak leeral ci sëriñ Massamba Diop Sam am nañ ko luñ ci doon séentu ci ak leeral ci sëriñ Modou Diop moom sëriñ Massamba Diop Sam am nañ ko ndax leeral nga fi loo xam nit bokkoon na ci kër gi tàllal fi ay loxo ay loxoom ab sëriñ ni ko aslamtu ci ca lii bu ko seetaanee dinaa xam si lii mësu koo xam ci sëriñ Massamba Diop Sam wala mësu koo xam ci sëriñ Modou Diop moom sëriñ Massamba Diop Sam leeral nga fi tam ñeenti point yoo xam ne si ni kontaan naa ci lool ndax bari na ñoo xam ni déggoon nañ ko déggin gi dese na leen leer muy xottu gerte boobu nga xam si ni sëriñ Tuubaa da ci doon misaal àjjana bu ni toloon mu jox ci sëriñ Massamba Diop Sam doy waaye da caa tudd ak mbooy mbooy ak sëriñ Massamba Diop Sam nag ñu bëri buñ ko déggee da leen di ump ndax waxi sëñ tubaa dafa xóot ci suñu nopp mbooy ak sëñ Masamba Jóob Sam Ngewge ñun taxuñu koo jóg ñeme rambo rek ko ko tax a waaye sëriñ sëriñ Tuubaa ay étage la may sëñ Masamba Jóob Sam yoo xam ne boo léegi ñun ñoo fay dëkk ay étage ay étage ak ñun moom la ñuy dëkke mbooy googe ñu sëñ Masamba Jóob Sam di rambo lay dem di leen ko lotisel di leen ko daggal ay terrain ñu fay dëkk ñu naroon a dem faneen kon ñoo ngi sant ci côté boobu baax a baax di ci kontaan sëriñ Cheikh ak waa Argentine TV gépp ñoo ngi leen di sant ndax ñoom ñu safoo sëñ Masamba Jóob Sam lan waaye nag bis bi bëtin feeñ na ci mbóot feeñ na ci waaye mbóot moomu yàlla bu mooy Argentine TV ndax kin ko tuddee muy doomi sëriñ Massamba Diop Sam nekkoon xalifa bu sëriñ Massamba Diop Sam wax na ne sax moo nekkoon juróomeelu xalifa bu sëriñ Massamba Diop Sam dajee fi ak sëriñ Saliou Mbacke muy juróomeelu xalifa bu sëriñ Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul kon loolu mbir la kon buñ ko tuddee bis ca mu ne bis bi ku ci feeñ dootoo nëbb sëñ Mara Seck ñëpp xam nan ko nee na ko sëñ Mara Seck bis bii ci la njëkk a jànge ren doon ñaar fukki édition ak juróom-ñaar mu ne kon bis bi ci ngay faloo ci ngay folli ko waaye yaakaar naa ku dégg ku dégg jànkati xasida yi mënoo leen a lim ban nga génn ci sëñ Mara Seck teg ko fee kon kon waa Argentine bis bi gëm naa ci la faloo ñoom itam ñuy sant ñuy kontaan ci ñoom di di leen sant bu baax di ñaan yàlla mu dem ba doon ay télévision yu bëree bëree bëree di ñaanal Serigne Gora Seck mi nga xam day télé bi sëñ Massamba Diop Samb ñu am koo xam si rek ko ci fàttaliku di di ko ñaanal suñu borom guddal fanam bu baax muy Serigne Sidi ilimaanub dëkk bi nga xam ne moo daan taxaw alxuraan ji waaye ren nag daa amoon ngànt loo xam da ko xaw a dab da ci doon am gan ñu koy ñaan suñu borom jubale wërsëg yi def leen njaboot gu barkeel barki Cheikh Massamba Diop Sam wasalaamaaleykum wa rahmatullah